abonné leen ci suñu YouTube ngir jot saa su nekk ay xibaar yu wér te ci mi ak ci Sénégal day léegi waroowul ak jaxannama goo xam ni dees koo daw turbine yéen kaay naan maan xale yaa ngay daw di wuti wàllu feneen waaye ca daw ga ña ngay faatu ci géej gi faatu ci anam woo xam ni mitti na wala yéen kaay bi média bi naan maan lu toll ci ñetti téeméer ci doomu Sénégal ñoom ñëpp nag ji ay ndaw yoo xam ne ñi ngi faatu ma ni la ci waax yoo xam ni fii ci Afrique la doon fàq nag jóge Sénégal ngir dem île Canaries foofee nag ñi fa doon wuti ëllëg gu ñoŋ doon fa wuti geneen Sénégal goo xam ne dina wuteeg gi ñu dëkk wala réew moo xam ne amul misère amul xii xiif amul wax ba mar amul jaaxle amul toñtoñal ay institution réew moo xam ne amul geesu dugg kaso turbine naan kon kaay réew moo xam ne ma ne la ba nii kenn xamul président boo xam ni dangay samp ëllëg ñaata mandat ngay toog kenn xamul yéen bi naan man ba tey daw réew moo xam ne soo doonul politicien mënoo ami milliard ci réew mi daw réew moo xam ne dangay nekk ci république bi di sàcc ma ne la doxal la la saf di sàcc di maye di sàcc di xawaare di sàcc di wan askan wi te dara du ci fekk ñuy détourner ay milliards yoo xam ne askan wee ko moom askan woowee tey dëkkee ndóol dëkkee xiif dëkkee mar dëkkee jaaxleeg coono goo xam ni maar day taali tribune naan man réew moo buy daw l'observateur naan kon réew moomee président de la république war a jaxase waat magistrature bi nu muy doxee turbine naan koon réew moo xam ne tàngaay ak ñuy bëgg a yóbbu sil xafaat lobs naan kon ca réew ma météo ma ngay xam ne ni tàngaay dana fa gën a jéggi dayoo de ku yebul naan ba boo booleeg di uppu waaye tam di feggu mag ñi ndax boo moytuwul ma ne la mag ñi ci réew mi tàngaay bi man na leen yóbbu jaxan na ma turbine yéen a kaay naan kon moo taxit ndaw yaa ngay daw réew ma ñetti téeméer ci doomu réew moo xam ne ñaari xale ci Kër Masaar ñoo doon ngacc foos ñaari xarit la nu far ànd faatu ca foos ba lii la xale yi daw de l'enquête naan kon ba tey daw réew moo xam ne xeexoo dëgg-dëgg moo am ci wàllu politique ay mag ñoo xam ne mani la nguur gu ñëw ña nga ca woon fi ne nag ay alliés ñooy xool sàll ngaari lam tooro Bourguédé lu muy dogal parti socialiste moom la mu peese woon bu njëkk ndax man ngi koy peese ba tey moom Moustapha Niasse doon seen baay en tout cas yéen kaay bi naan maan gi moom dakkul mi ngi am ci réew mi sunug larmé moom général Moussa Fall ma ngay xam le ni danoo janoo ci réew mi ak violence yoo xam ne maar day taal yi léegi fa naan man dara général Moussa Fall ma ngay fegu de wal fu ko di jee naan kon waxtu wawu ca réew ma allié ca boppam ña ngay ñàkk seeni ru ndax na kañu àndaloon ci boppam nee na bana direct news naan man président Macky Sall nee na bana waaye coow li coow li moom mooy lan moo tax dégguñu Farba Ngom waaye tam lan moo tax dégguñu Latif Coulibaly ñoom ñaar daal ñi ngi may tekk goo xam ni maar day taal yi réew mi ko di jee kon coow li ca pëndub teen ba gaaña amul baaga gaañaa ngi xaar fi mu ne président ki sàll kan nag lay tabb ndax nag la waaja waxoon lamb ja mi ngi guddi réew mi quotidien naan maan fi mu ne daal président Macky Sall yàkkamti nan ko laas yéen kaay naan ko déet bul yàkkamti ndax yàggatul aljuma ji président Macky Sall dina wax nag kan la tabb vox populi naan maan candidat bu ma ki Sall bi day gaay yi xam nañ ko laataa aljuma moom président ki Sall laaj na ay ñoñam mu di allié ak ñeneen wax nañu député ya dem nañ bureau politique ba dem nañ maanaam Benno Bokk Yaakaar daal kenn desul dem nañ nañ te ñëpp lañ waxandoo président Macky Sall mooy lenn tabal koo xam ni ma ni la bennoo bokk yaakaar amu fi xaaj ak seen ñëpp la boole l'observateur naan maan ka nga xam ni moom la président Macky Sall bëgg tabb ngir mu wuutu ko biir APR jàppal ko xam ne ndaw ñi am nañ ci moom yaakaar la koo xam ni ci réseaux sociaux yi xar kanamam baax na fa amul ŋàññ ñu bari te daanaka ñëpp ko bëggandoo président Macky Sall ka muy tabb kenn mësu koo tudd ci dara lu ñaaw président Macky Sall ka muy tabb am nay qualité yoo xam ne maar day taali ci wàllug liggéey waaye nag dafa président Macky Sall daanaka beneen Sall ngaari lam toora bur géde moom Ousmane Sonko dee ay ñoñam nee ñu aljuma ji daañu ko tabb le mandat yéen a kaay naan maan waa Pastef kay fit ñooma lu mu lëndëm lëndëm ma la gaayu Sonko yi dañuy xuus jaar ma nga lëndëm lool ci Ousmane Sonko waaye ña ngay xotti di talal rek te ni Ousmane Sonko fukki fan ak juróom ci weeru sulet bii dañ ko tabb neex président Macky Sall ak naqari koo ca yem moom Ousmane Sonko mooy doon seen candidat daañu ko investir turbine yéen a kaay naan kon lu mu métti métti jàppale ni doomu Sénégal ña ngay faatu ca wax ya ñetti téeméer ci doomu réewum senegal faatu nañ ca géej ga ngir wuti woon ëllëg woo xam ne ñoŋ na daw Sénégal goo xam ni métti na bari nay coona bari jiixi jaaxa bari fitna Sénégal goo xam ne ma ni la boo bokkul ci langu politique gi mënoo riche yéen kaay bi naan xanaa ma leen doon fàttali rek ne leen ay doom lan sunu doomi réew lañ faatu nañ ci géej gi yéen kaay bi dee média bi naan man ca lakk nga xam ni amoon na it ca marché zing nguurug Sénégal dem na taxawu ji commerçant yi yéen bi naan man nit màgget seen gannaaw ba mu jugee béyti layil xaraam daal nay dalloo ab maternité bu yees ca Malicounda ngu guj daloo it ab poste santé ca gaña bugu moom màgget naan fii ak 2025 sunu bëgg-bëgg du dara lu dul Malicounda ak lu ko war lépp lu jëm ci wàllu paj mi daal di matale ñaar fukk ak ñaar dëkk dëkkaat yi nga xam ne ñoo nekk ci Malicounda ñaar dong ma ni la ñoo ci amagul poste de santé te fii ak 2025 màgget naan daañu ko matale centre de santé war na am ca ñaniñ war a amit ca bët gànnaar bu Malicounda yéen kaay ngi bëgg a maanaam seen naan leen jeexagul le point yéene kaay naan man jëwriñ gi dénk wàllu caada ak cosaan Aliou Sow ma nga naan day bés boo xam ne dañuy sargal président de la république Macky Sall lañ bëgg ci réew mi le témoin yéene kaay naan kon baccalauréat bi am na ci Sénégal waaye résultat yi daal dal na xel ci ndongo yi le soleil yéene kaay naan kon duutal fii sa baaraam Yacine Fall ab xale bu jigéen la boo xam ne examen ren gii day lu ñu wax wax waxub turam moo am baccalauréat kay ak notuk 1796 le témoin naan kon résultat yi xel dal na ca le soleil yéene kaay naan ko déet résultat yi ñu gis yi kay jeexagul waaye xel dalagum ca ndax bari na ci xale yoo xam ne ña nga dem ca ñaareelu wërngël ba le soleil yéene kaay naan man tey daaneel ak man ndax maa yor tës wi maa ngi ni saraax nag ci biir ña nga xam ne dañ leen di pee ay mari bat muy góor ñoo xam ni seeni soxna dañ leen di dóor ba mar day taali yéene kaay bi naan maan julde mii jooy la dëkkee méttitu yaram la dëkkee waaye tam xal la dëkkee ci kanamu ñett ci ay doomam la ko soxnaam di yoo xam ni mar xanaa julde mii rek ngeen gis ndax bari na fii ñoo xam ne dañuy ñëw di kalaame seeni soxna ndax dóor yi leen di dóor moo di mii moom naan ba ma feebaree ak tey sama kàttan wàññeeku ay dóor laa dëkkee ci kër gi sàmba moom naan man dan may dóor ba jàpp samay waay yàlla sama soxna yóbbu sama fit ba bu ma nekkee ci biti ñemew ma yëkki sama kàddu foor awa bari mii naan man dama daan dóor sama borom kër de waaye damaa gis ni dafa jàpp samay doom xale yi ñemeytuñu sigg ci koñ bi am nañ gàcce am nañu rusaange lii tax nag ma bàyyi dóor sama baax la sax mm-hmm. dafa am nu ñu koy gisee safaan bi dañuy gis dañu dem ba toll fa nga xam ne ñoom gëmatuñu critique ñoom jàpp nañ ni que c'est des êtres parfaits jàpp nañ ni que c'est un régime parfait jàpp nañ ni que waaw c'est c'est un gouvernement parfait mooy que les Sénégalais doivent se plier aux injonctions même bu dee sax elles sont naturellement ou bien elles sont visiblement euh, d'une illégalité frappées d'une certaine illégalité moo tax saa su nekk damay faral di wax mën na leen avocat bu taxawee ne moom présomption de culpabilité lay wax ci dossier Ousmane Sonko. Mm-hmm. wax fa dëgg yàlla avocat boobu mu nekk ministre mu nekk président mu nekk député mu nekk DG leneen lu mu mun ti wax ci wàllu yoon warul bett kenn. présomption de culpabilité amul fenn. ah man de maa ngi koy soog dégg moom nee na moom moom moom de ci moom laa dégg naa sax ay eh, avocat France nee na ñoom bëgg nañ mu jàngal leen ko mm-hmm. am na ay avocat France yu ma gis yu def yu def yu yu yu Twitter yu def ay post daal ne ñoom bëgg na mu jàngal leen la présomption de culpabilité. Mhm. parce que ñoom jànguñu ko. te comme moom France da jàngee xam naa danañ leen wax fan la ko jàngee donc nit ku mel noonu. Mhm. wax fa dëgg yàlla ñu jël ko indi ko à la tête de ministère extrêmement stratégique man dama jàpp rek ni mbir mi sax du Moussa Bocar Thiam. Mhm. mbir mi président Macky Sall ci naka. keppaar gi. bu ñuy fàtte ni que bi muy fal gouvernement bi lan la waxoon gouvernement de combat. Mhm. mooy maanaam xool ci qualité. xam nga boobu léegi on ne s'est pas posé la question combat dans quel sens. combat la pour sénégalais yi mun a lekk. combat la pour sénégalais yi mun a faju. combat la pour sénégalais yi seen droit ñi koy respecté. wala combat la pour lan mais a priori. on vient de voir un peu ce que voulait dire ce gouvernement de combat. Mhm. parce que boo ko gisee c'est gouvernement qui est tout sauf de qualité. sa composition vraiment bëri na yànj na mais la qualité moom elle reste vraiment euh, à redire. Mhm. waaw. ku dese sept mois nga defee ni eh, jamono ji waxuñu woon gën di neexal askan bi vu que sax déjà eh, ñoom xamaguñu si ñoom kan mooy doon seen candidat eh, ak élection yi nga xamante ni dañu war a ñëw en perspective nga defee ni waroon nañu wéy ci voie bi nga xamante ni moom nañ leen tracé te ñu nee woon ci depuis le départ. waaw mais loolu nag moo lay moo lay moo lay firndeel ni que euh, président Macky Sall il a fallu euh, de sérieuses alertes pour que mu dellu gannaaw ci troisième mandat.